comme que dëkk bi vaar moo xew génne ko nga teg ko mënuloo ko ndax amul on l'a jamais di on n'a jamais sorti de notre bouche baatu président Diomaye Faye warul recevoir Charles Michel génne leen ko dañu ne nañu daan alerte sa jamono Abdou juuf te ñëpp fekkee nañ ko surtout ñu xaw a ceux qui font un peu de lage en 85 pour l'ouverture scandaleuse avec l'autorisation de l'État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 mu di Abdoulaye Wade dañ ko doon tuumaal ne dafa yónni ay euh, ministre pour ñu dem à la conférence de Genève qui était par des lobbies LGBT le président Nicolas Sarkozy yabal jawriñam bu ñuy wax Rama yàdd suñu compatriote bu boobu le demi tubaab demi sénégalaise qui était ministre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 di kann suloo xale yi di yokk insécurité bi di tas sëy mais surtout di déstabiliser l'économie nationale à cause du recyclage de l'argent sale Ablaye Wade cax ñu j'avais donné tous les détails nee ñu kocc nee na nettali ci làmmiñu borom la daxe ñu ne ko ah lu tax mu ne lu tere yéen ngeen dem assemblée del ko seen bopp juridiquement Jamra mënul dugg assemblée nationale il a fallu créer sur les flancs de Jamra une formation politique bu de la RDS Rassemblement démocratique sénégalais comme je l'ai dit tout à l'heure qui était en alliance lors des élections de 2017 ak Samba Kara Ndiaye bi jiite kuréel bi ñuy wax na NADEM alors ñu dugg assemblée d'abord on a bati campagne en partenariat avec la coalition Sopi am député dugg assemblée